Assalamualaikum guys. Begenalin ba inin kijam man man kijam bah alhamdulillah. Dari malin indil ben application bu am am solo ci sen WhatsApp simple bi ngeen télécharger Play Store wala WhatsApp Delta wala WhatsApp GB. Application mi day tax nga am SDK yu rafet ci sa conversation WhatsApp. SDK ak ay GIF ak SDK yu leen neex mi ngi application yu ma di wan léegi. Léegi fin video bi na leen wan nan ngeen ni télécharger application bi. Tamit bu leen fàtte like video bi, commentaire wax seen xalaat ci video bi pour YouTube gëna percer sun ay vidéo gën ko percer pour ñeneen ñi mëna gis vidéo bi léegi ñu ouvrir application bi application bi moo nekk nii boo dikkee fii lay njëkk a indi gisoo top la nekk fii mooy top yi application yi génn yi mooy top yi gisoo beneen bi mooy coucou beneen bi mooy gif mooy euh, sticker la tamit yeneen xool ban façon beneen bi mooy gif gisoo ay façon yu bari la ay sticker yu bari la dan nga koy defee groupe pour mën a télécharger groupe xam nga boo bësee benn nii benn rek ngay mën a télécharger comme boo nee nii benn kase bii kase ngay mën a télécharger te application bi français la bii rek ngay mën a télécharger léegi dama leen di wan nan ngeen di groupe léegi da ngay bës kii bële ci kaw boo ko bësee après nga ñëw tànn ban ngay télécharger gisoo yëpp ay façon la léegi ñu tànn groupe bi ñuy télécharger groupe bi gën a rafet pour ay conversation comme ñu jël we love smile avec texte léegi ñu jël bi léegi ñu bës télécharger affaire bu mo bi ci côté bi léegi boobu c'est télécharge ngeen xaar téléchargement bi démarré ngeen xaar téléchargement bi egg léegi téléchargement bi egg na léegi bu eggee da ngay bës ci côté bi ajouter à whatsapp boo bësee ajouter à whatsapp mu indi la whatsapp delta ak whatsapp gb ak yeneen whatsapp bi léegi boo bësee ajouter à whatsapp mu indi la was day jaa am publicité buy jàll ba pare léegi bu pare dina la indil whatsapp pour nga ajouter ko ci whatsapp delta wala whatsapp gb wala whatsapp simple léegi ñun dañ koy def ci whatsapp gb bi léegi buñ ko ajouter ci whatsapp gb bi automatiquement day ajouter wu ci whatsapp gb bi gisoo ñu xaar mu ngi vers whatsapp léegi bu envoi bi àggee da ngeen ni bës add comme bu da ngeen ni bës add boo bësee add day dem sa whatsapp gb léegi ñu ad, lii dem léegi egg na ñu dem ouvrir whatsapp gb moo leen boo ko téléchargé ba pare fan lay nekk ak nan nga koy utiliser léegi bu ñëwee whatsapp ñu tànn numéro bi ñuy waxtaanal comme ki ñuy wax ak ci conversation MLD pro YouTube léegi boo dikkee nga dikk fii comme ni ngay kiiwee sticker nga ñëw fii écriture yi après nga bës fi ngay jëlee sticker comme boo dee envoyé nit sticker ci si fi ma téléchargé léegi moo nekk nii comme nii samay samay sticker yaa ngi nii léegi nga ñëw ci fi mu def nit bi def loxo bi nii ci côté bi mu ngi nii léegi boo dikkee yin téléchargé mi ngi nii mi ngi nii yin téléchargé indi ko was whatsapp moo nekk nii boo ci téléchargé boo téléchargé après fii lay nekk li moo nekkoon video tey bi bu fekkee video bi neex na la bul fàttee abone partage vidéo bi like vidéo bi lu am solo la ci chain bi kon gaay ba beneen vidéo incha allah